déglu nañu Ousmane Sonko et on on entendait en sourdine en fond sonore le bruitage ci mbedd mi maanaam xale yi doon yuuxu. Mhm. yow nga tëj ab télé télé bay continuer ci internet bi mu gën a riir ah. doo bàyyi xam maanaam mag buy def dara mag suy def dara gis demul du ko bu bëggee kii. pour ah. pourquoi forcer maanaam tey jii nii benn lenn rek moom la état senegal Sénégal mun a def contre Ousmane Sonko nee ma lan. loo xam ne tey mun na ne xaaral ma liggéey ci loolu naa bàyyi li may def yëpp liggéey ci loolu xam nga mooy lan. Mhm. mooy lan sekk. ne xaaral ma jéem sax nit ñi duñ ko bëggati. Mhm. parce que leneen loo def. nit ñi dañuy taxaw toujours boo boo jógee pour Sonko xeex nit ñi taxaw. boo mhm. jógee ne da koy jàpp te teg woo ko ci yoon nit ñi taxaw. Mhm. c'est que xool lu ca jiitu dëkk fa. voilà mhm. lu ca jiitu dëkk fa. waa léegi lan nga mën a def pour que Ousmane ko nit ñi dootuñu ko bëgg <laughs> nga jéem quoi mais jéem bi da da koy teg ci lu légal. il doit dafa am droit dem defi meeting am bul ko jéem a yàq bàyyi ko mu meeting yow yow yow yow meeting ak. moom buy meeting yow meetingal. Mhm. yaa ngi meeting yaa ngi koy def am problème mais bu ko yàq. bu ko bu ko bu ko keer bu ko toppatoo. jàkk jaa ngi nii kay ku mën nodd nodd nodd na ku ne doxal. <coughs> wala ku ne. na ku ne doxal. ah doxal waaw. <laughs> voilà wax yi waxee ngay wax. déedéet déedéet déedéet. <laughs> waaw waaw ah, dégg nga wax. voilà <laughs> voilà. voilà. si Mame Samba. donc. Mm. ah nga doyale waar. tey jii nii fi ñu toll nii. nguur bi loolu rek la mën a def loo xam ne nit ñi sénégalais yi dañ koy may jàmm moom nguur gi moom nguur gi mu may sénégalais yi jàmm le temps que ñu egg ca ca ca final ba. waaye Mamy Samb. man Ousmane Sonko su ma kaa xeex may nguur maa ngi installé centrale électrique bu mag Malicounda damay focus ci loolu mettre ko en valeur dégg jàmm sénégalais ya nekk Malicounda kontaan courant bi yokku fa zone environnante affaire bi yok ñu gis ah sincèrement vraiment c'est gentil c'est bien Way yow fi nga defee lool ya nga coince ap nit mom nga coince que nit ñi mu la le sa liggéey. sa le lu bax la nga def mm-hmm. ban façon intelligence la te légui yow dem nga ba ki ngay xéxal gën la mous fim ni Ousmane Sonko len gëna mous état eh, au Sénégal c'est dimay wax nak du len neex fi fim ni mom euh beutek ki ngeen ma xolé eh. suma ñaké mando suma mando nak mané yeen ngi comprendre lima wax Ousmane Sonko il vous donne le pion tout le temps parce que yene ñew fekk ba fi mu tok ngeen nako talal sa loxo mu talal loxom ngeen jël jox ko affaire bi jox ko solution bi jox ko pexé bi jox ko buzz bi jox ko lepp mu jël té xam nga lolu moy lan oui échec et maths. par exemple. jox naa la ko jëlal mais nanguwaat naa ko mais ni ma kaa nangoo moo la ma puus nga puus léeg-léeg mën naa teg dem liggéeyi ñëwaat puus yow nga necca vingt quatre heures sur vingt quatre quand j'entends des autorités dire Ousmane Sonko dafa désacraliser war may Touba may xool ñooñu si ay bët mën a ñii ñii ñii est yéen ngeen gis ay image Touba dalal Ousmane Sonko ñaanal ka tàccu ka gunge ka dooleel ka mu jóge fa ñu topp ko yóbbu ko ca kër kilifa yi bàyyi faal ya ñu ngay ziar bu baax suñu kilifa yi ñu ñaanal ka gunge ka waaw góor tegal ko ci waaw góor waaw góoree li ma jaaxal lan moo tax ba ñu yeggee ca ca ca Mbàkke du dañ ko doon tere bu dugg Mbàkke mhm. waaw ba mu yeggee foofu la moo tax doon ñu fa ay lacrymogène lu tax tasaaroo ñu ful ba fa nekkoon ca Kër baay faa mm. ah waaw xëy na foofu. danoo xëy na danoo war maal bërëb ba. Mm. xëy na mm. waaye lum si mun munti doon lum si mun munti doon xam nga tey jii nii suñu yeggee ba sa laaj boobu. Mm-hmm. sa laaj boobu xam nga ah, dafa am lu tax nga laaj. la nga gis a tax nga laaj. pourtant loolu war naa mën a ñàkk on n'est pas dans une monarchie on est dans un état. Mm-hmm. où ñëpp a yem ci ay lan droit. ak devoir waaye au delà war ma ci sunu kër jabootu diine yi. war ma bàyyi tax ndax policier bi ci boppam day nekk taalibe këru diine ba ak ñeneen ak ñeneen ñu ne war ma waaye état nag mooy jiitu waaye état ba dafa am lu ko sous-tendre. racine ba. moo ne ca këru diine ya. lii tee Sénégal moo ne ca foofu ca liggéeyu sunu maam ya moo tax ñu la. wormaal di def attention waaye nag jamono bii ñu toll nguur bii ñu jàkkaar lool moom wormaalul loolu de ndax këru diine yi ku si ñaan nguur gi du la may moom li mu bëgg a def lay def laaj leen kilifa yi rek bis bu jot ngeen ñaan kilifa bi ñaan ngeen ci kari Meïssa Wade ñaan ci Khalifa Ababacar Sall ñaan ngeen ci Ousmane Sonko ak keneen ak keneen kenn wuyuwu leen pourtant bu taree ba tar ci yéen la ñuy ñëw ne leen ndimbal yéen nag këru diine yooyu ki jabootu diine yi yéen nag yéen a war a nag xool nag mbir mi nag en face xool taalibe yi li ñuy daj. Mhm. xool population yi ne kat lii mënut ko wéy ngeen jël kurus teg ci wax wax ca kaw ñépp dégg. sunu maam Baye Lahat da daan araftu di wax sunu maam Alassane Laye Raan maam Raan da daan araftu di wax. Thierno Mountaga Tall da daan araftu di wax. maam Abdoul Aziz Sy Dabakh Malick. Seydi Hadj Abdoul Aziz Sy Dabakh nit ka baax ka lool. Sey Dabakh da daan wax ca kaw. lay Dabakh Malick. wax ci république bi ci état bi. Mm-hmm. Mm-hmm. islam loolu la Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo njëkk politique ñëpp. moom mooy politique sax faf mm-hmm. mooy politique Muhammad. laaj leen Lamartine waaw. xam na kuy Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaw. bu nu tolloo fii nag tey Sénégal nag fii kilifa yi nag da di wax nu dégg nag dañ leen ko ñaan ngir jëmmi Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa ndax fi nu toll la hmm. booy wax ak nit déglu la dangay wax ak moom ci mbooloo mi soo nee nit lii attention lii attention lii attention ba toll fenn fi gis ne moom taxawul da ngay wax ci kaw nag mbooloo mi ñëpp dégg ñu xam ne responsabilité yi gàddu ngeen ko bu ko defee nit ñi daal di seen xel dal hmm. bu nee tekk rek nit ki di di dër di dem fi muy dem du neex te du ñu bàyyi nag ba yegg ca ba nit ñi jóg ne dañuy fajal seen bopp ñaan leen toog leen bu boobaa bu nit ñi déggul bu ko kenn meree kenn loolu moo la dëgg moo tax suñu kilifa diine yi këru diine yi muy jàngu bi di këru islaam dañ leen di ñaan ci barke yonent yàlla isaa ibn Maryam alayhi wassalaam barki sayidina muhammad sallallahu alaihi wasallam ngeen wax ak president Macky Sall parce que nak bu ragal day am ci diggante ñaar ñooñu geuma ni këru diine yi ñoy ragal président Macky Sall yaakaaruma bu fekke da ngeen ko ragal dina nek problème mami samba ak koor te yaakaaruma loolu ndax këru diine yi wax dëgg yàlla diine la noo dund keeruñu leneen Do leneen du alalu aduna du neex neex du dara xam ngeen ni bu doon neex neex sanu maam xaadimu rasul du dem Gabon. wallaay dëgg la. du julli ci géej gi. Mm-hmm. bu doon neex neex Seydi Hadj Malick du dox ba Makka. Mm-hmm. aller retour. Mm-hmm. bu doon neex neex bàyyi laay alayhi salaatu wa salaam du nangu lenn li ñépp naan xel ma dem na. mu dékku rek dem na géej puusal randul ma dëkk. waaye yéen ñun du ñu xoolaat loolu Cheikh Umar Foutiou Tall boroom xam-xam yi nee nañu mu ngee dox suñu biir ba tey nu ko neex ut taxawee. guerrier bu mag bi wallaahi. xeexkat ba. ka am jom ka moo fi dugal diine ji kilifa yooyu yépp nekk fii ci réew mi. Sénégal di dox yàgg dox. mu mhm. téye ba toll fii. ñu ne dañuy dem jëmmi jamono boo xam ne ñu ne ñun waa Sénégal dañoo war a ragal benn nit. Mhm. waaye yéen. voilà. yéen yéen ngeen foog ne loolu mun naa ne Sénégal ñu ne dañuy ragal benn nit moo tax président Sall foog nga nga nga comprendre ne que ñun war ma lañ la jox ndax yàllaa la def kilifa réew mi. moom dañu ko warut a ragal sax ndax moom ñun ñoo ko tànn def ko sunu président de la. yàlla la sunu borom moo la def kilifa <laughs> réew mi. Mhm. ragal kay war def la si jamono bi kilifa Afrique. dëgg yàlla. def la. àdduna bi bàyyi la xel di la déglu ah. nu laa ñaanal nga pare sa ay ci jàmm ak salaam dem ci des ci àdduna bi di doxal ñuy am fierté naan sunu président ba moo nekk nii hmm. nu laa dégg ngay dem ci ay dëkk di régler ay problème du yow président Macky ak kilifa yi nekk Afrique de l'Ouest CEDEAO Gambia yi naan ECOWAS du yéene dem gambi déloger euh, Yaya Jammeh ndax lan dafa doon bëgg def forfaiture forcé wa président Sall do bàyyi loolu xel nañ waxante dëgg rek président li ma wax ni yow xam nga ni dëgg la ñi la wër xam nañ ni dëgg la forcé bobu Yaya Jammeh def motax ñu jëli ko déloger ko yow nga jité ko. mu daw nëbbatu kanilaay. wa légui est-ce que aujourd'hui yow président Sall da nga wara nek ci même ligne bi teguwul fenn mon tax nu am nu waxe quel que soit le seuil le degré de respect bu am à l'endroit de l'institution de l'État faw nak nu xam ni nit ki nit la nu wax ak moom mhm. ndax réew mi mënuñu toog suñu ay bokk ñu leen dee faat ñu leen dee tëj nit dof ngeen ko ko ci bi comme ça c'est un plaisir pour vous Fadilou Keita Amidia ak ñi ca dess te du ngeen xool ne ñooñu dañoo am ay famille te du forcément de du tic au tac dañ leen wara japp tej process amna lutax ñu ngi koy defal yeen ñi nekk seen biir APR ak benn bokk yaakaar ñi ne seen biir tranquillement la cour des comptes pourquoi les ministres ne répondent pas pourquoi du démissionner wala nga wàcc leen président ñu wuy ji mais ça prend du temps. On prend le temps de... Parce que c'est vous. On prend le temps. On dira, euh, tantôt, oui, ils vont répondre. La et est Oui, euh, prend le temps. D'enquêter. D'enquêter. Pendant ce temps, nous avons dit, nous avons des le régime. wa yo yëpp dit, ay ton la série de Samba corps ay ya baré et sénégalais yi sénégalais local législative et vous le voyez au quotidien il s'agit pas aujourd'hui d'avoir une équipe day réseaux sociaux 24 heures sur 24 ñuy répliquer di tontu sa la parce que la masse elle n'est pas contente li ngeen def mbacké xam lu mu jur nit ñi bëgg Ousmane Sonko ndax am xemem ak ak ak plutôt au lieu de même. yërëm ñeewantal yërëm gën ko bëgg mooy li la daloon yow président Sall bi ñu la bëggee yóbbu fële ca central nga dem wuy ji nit ñi ne déedéet du ci dal bu ko kenn def lu bon nit ñooñu nag dañ leen war a delloo mbirëb gor nit ñooñu doon bañ loolu doon bañ président Sall ñu def ko naka sul noonu nit ñooñu dañ leen war a delloo seen ab ngor ak seen ab gore ak ñi ko gunge en 2011 bi mu ne policier bu ko téyee mu fël ko. wa kay ci jurbel Samb kor, kor di yalla guddu fat Samb yalla ngeen guddu fat parce que ci jurbel président Sall li dal Ousmane Sonko Mbacké mo la dalon mhm. nga ne da nga fël. policier dem et sur un ton bu ngeen demee nak bay sanni di tiré lacrymogène wala lu mu doon ci auto leader politique bu nit ñi di top.

di comprendre l'olo président yow ak ñi nga àndal di comprendre à nos lu soppeku du Sénégal bu 2012 bi Sénégal la bo xamni une jeunesse super méga terrain éveillé qui comprend tellement de choses et un rythme si poussé poussé et rapide. voilà voilà voilà voilà l'eau voilà c'est voilà voilà. voilà voilà voilà. fan baye bàyyi nañ luy. comprendre ak voilà bax voilà yalla sax mu ngay seede. wallahi wallahi kon fiñu tollu ni li ngeen dee bëgg a def wal fajri mu ngi jëm ci menace menacer toute la population dot leen am information bu baax. Mhm. dot ñu leen ko jox. journaux yi bien radio yi bien télé yi bien moyen ñi and ak ñun pas de souci. àndu leen ak ñun on va vous casser on va vous bloquer fi mu ne nii bu ngeen mënoon tëj YouTube bi tëj ko te yéen ciy dox waaye li gën a garaaw mooy est-ce que xam ngeen ni nit su jógee ci étage immeuble maar day taal ci àll muccal ñun ñëpp. muccal ci ñëpp su ko nattu dalee muy daanu buy jéem a résister sax daanu bi day gën a gaaw. buy ut pexe pour bañ a daanu. day ah. daanu bi day gën a gaaw. Ah. la pomme de Newton xulil da kaa xëcc. Ah. loolu sunu boroom la. yàlla bule bule bu le buggee muccal nag boo naroon daanu dafa am fooy téye rek doo àgg yàlla mooy def loolu mooy programmé wul pour nga daanu su programmé pour nga daanu nag yow ci sa bopp sax daf lay poussé nga wax ka nga wax ka su ma defee mandat bi président yaa ko waxoon. man dama xamul nag loolu nan nga kaa dindee yaa ñu ne su ma defee mandat bii bi ci topp damay dem te il aurait fallu nga ne doo nekk candidat tey coono yi yëpp duñ fi mbàkke du tàkk fen du yëngatu kenn du mer mais nii nii noo bi moo jur suñu ñu nii te mooy indi tout le temps nga xalaat beneen stratégie pour dindi pour contrer pour xeex ñi nga àndal nekk ci même logique bi sonn. yéen ngeen meeting avant élection territoriale meeting avant législative di meeting rek di dem du ngeen taxaw <laughs> te yow ba nga meetingee gañewoo territorial gañewoo <laughs> sama xel dafa dem ci Ziguinchor bi ak Thiès ak fa ca des yéen fi ngeen meeting yépp gañew leen aller gañew leen retour du territorial du législatif fépp mu dóor leen ngeen di meeting rek di dem te du ngeen taxaw ne yéen du ngeen taxaw nan lañ jël BRT wala teer ndaan da fay fay gi yaatu foo dab mu gën a métti nga nga continuer nga doo taxaw <laughs> ni waxañ bi yàq air. voilà jërëjëf Seck jërëjëf. dañ <laughs> bàyyi wal fajiri mu tàkk. waaw looloo gën taal leen wal fajiri. wallaahi sàmb dimbali ñu wax ci ñu taal wal fajiri. te yow chaîne de télé boo xam ne moo ëpp bës jamono bii ci réew mi taal leen que mu tàkk.